asalaamaaleykum mbokku taalibe yi ñu leen di saarewaat bu baax di ñaanal ñëpp tawféex eh, di saare sunu yaakaar teeg ëllëg sëriñ Abdou Karim borom makaarimu axlaax yàlla na fi yàgg lool wér ba wootee mbii mu woote ba mu sopp te ñu ànd kook moom eh, di saare jëwriñ Ibrahima Mbeng di mii kilifa KMT sunu boroom dolli tawféexam ba nii Lamp mel ci soror yi mu mel ko ci biir jëwriñ Makaabu Axlaaq gi yëpp ak mboolem ñu ko bokkal di saare jëwriñ Mamour Guèye mi topp ci moom it suñu boroom kattanal ko ah, di am mbégte loolu ci bés bi ñu ngi sant yàlla bu baax ci bés bi ndax bés bi bokk na ci bés bi gën a foor si ñun bo ndax bés boo xamante ni ci ngay tasanteeg sa yaakaar teeg ëllëg war a jàkkaarloog moom jébbal ko sam ñaq bis boobu dara mënu ko féete kaw kon ñu ngi ciy sant yàlla bu baax euh, di siyaare kàngam yi toog nga xamante ni ñoom ñooy kàngamu liggéey bi ñooy kàngamu liggéey bi muy KMT ñu ngi fi toog mel na jëwriñ Cheikh Ndiaye mi ngi nii moo yor wàllu finance bi nekk ci liggéey bi euh, waa fondation Sëñ Fallou ñu ngi nii toog doon ay jàmbaar lool ci liggéey bi jëwriñ Mbacke nga ngi toog jëwriñ Géda Bousso jëwriñ Serigne Ndiaye xamante ni moo yor kër sëññaan ñaan siyaare Ablaye Thiam mi nga xamante ni moo yore Géda Corniche nga xam ñii rek bu ñu fi toogee daanaka fédération bi toog na fi ndax daanaka bokk nañ ci kàngamu liggéey bi tey jii nag daanaka toogaay bi ñu fi toog mooy fas yéenee teeru daayira yi rek ñu ñëw bu ko defee bu ñu ñëwee fii la ñëw ah, ñi nga xamante ni jotoon nañ leen sasta seen liggéey matagul woon ñu indi ko fii bu ko defee ñu mottali ko defal leen décharge bu ko defee dajale ñaq yëpp def ko ci benn enveloppe bu sëriñ bi génnee rek bu ko defee ñu jébbal ko liggéey bi kon mel na daanaka loolu moo waral euh, toogaay bi fii gaa yi toog fi kon daal bés bi daal bisu mbégte la waaw bisu mbégte la boo xamante ni bés la bu yàkkamti ndax weeru tol na rajab ah nga xamante ne si la suñu yaakaar muy sëriñ Fallou feeñoon jamono weer wi ñàkk cee toog doomi sëñ Fallou dafa wóorut rawatina sëñ Abdou Karim mi moo tax ñu teew fi am ci mbégte lool yàkkamti lool nit ñi daje sëriñ bi génn ñu saafanteek moom waaw mooy ni ko sëñ Mamor waxee rek noonu rek la liggéey bi demee waaw weer wi ñàkk cee toog sëriñ bi daa wóorut a ah, liggéey bi nga xam nag diir biñ ko tàmbalee ak léegi mi ngi bëgg a def ay fan ah te ànd biñ ko àndee muy ànd bu rafet lool a ah, boo xam ni ki nga xam ni moo nekk ci bopp bi di jëwriñ Ibrahima ah kenn ku ne lii sa cër ci liggéey bi rek da ko ba ak yow kon moom dañ koy sant bu baax mu yàgg fi loolu tànd ak di ñaanal ñëpp nag ci barke Cheikh Abdoul Karim Mbacké ibnu Sëñ Fallou ah yàlla nañ ko teewe nii ay at yu bare bare bare bare bare bare ah, luñ ci jëf juñ ci jëf bu déwénee nañ jëf jëf ju ko fawxee bépp dayra boo xam daal yaa ngi ci biir liggéey bi sant nan la gërëm nañ gis nañ doxe ni bu baax ah di santit waa fondation sëñ Fallou soppay Cheikh Abdoul Karim ñu ay borom pas-pas di ay borom yéene ah ñu am ay mébét yoo xam ni ci liggéey bi kawe na kawe goo xam ni foo ko takk rek romb na ko kon mbébét yooyu ak yéene yooyu yàlla nañ ko yeggale ak seen sago ki nga xam ne moo jiite fondation bi di Cheikh Moustapha mi ngi Italie ñi ngi koy jaare di jaar zone Italie bi yëpp ak zone yi nekk biir senegal yëpp bàyyiwuñu kenn kon ñi ngi ñaanal ñëpp daal jàmm di wax liggéey bi nga xam ni liggéey nañ ko moom toll fii ñu war koo jébbal ku tedd ki yàlla nañ ko nangul te làqal ñu ko fi yàq yeegul te am nañ ci yaakaar baax a baax ah mbégte mi ñu am tey nag moom mënuñu mënuñu sax wax waaw mënuñoo wax daal kon daa mel ne kilifa yaa ngi fi xëy na danañ gën a yaatalwaat ci ci ci ci liggéey bi kon sant nañ bu baax daal. Eh, xanaa yor jukkoy makaarimal axlaa rek danoo yor jukkoy makaarimal axlaa ni musóor di wayafe ci bopp rek nu wayaf la ko nu wayafa ni ah ndax ku nekk xam ne na mbaxane ci bopp diisul musóor ci bopp diisul waaw ah danoo jël suñu tànk jël xol yi raxas ko ba mu set ba na aw fu foog fu gone ne fu xale nekk rek ba ñu mu yendal na fa ba ñu nu mu fanaanal ma ko ndax nun am lu dul sëñ Fallou am lu dul Cheikh Abdou Karim nu xëcc la nga ñëw ci liggéey bi loolu moo tax suñ jëwriñ ji ne suñ jàmbaar ji Cheikh di jëwriñ Ibrahima Mbengue nag amul poos jëwriñ amul poos lépp lu mu am suba ba jant so rek nun ñi noo ko moom ndax nëbbalu nëbb na suñu dara nun na dara lépp suñ suñu jëwriñ na loolu moo na may mbooloo mi waaw ndax mbooloo mi dañoo yomb xëcc lool ndax sëñ Fallou moom xëcc ci nit daa yomb lool noonu dong lañ jëlee mbooloo mi jërëjëf. nuyu kenn ku si nekk turam santam di jiital ci nuyoo bi sunu kilifa gu baax gi sëriñ kër Karim Mbàkke moom sëriñ Falilou yàlla na fi yàggu lool te ànd ak wér mboolook njabootam gi yëpp rek mu mel ne dañuy tàmbali liggéey bi rek diwoo woo jëwriñ daayira yi nga xamante ni boobaak léegi ñi ngi ànd ak ñun ci liggéey bi bu ko defee daayira bu nu lim rek jëwriñam ak a topp ci moom nan ñëw fii bu ko defee ñu mën a wéyal liggéey bi daayira guy mbind naa Njaay ak soxna Ayda juuf nan jege si fii daayira Tawféex Buso Baay Moussa Diop ak soxna Faat Njaay daayira mbaaru sëñ Fallu soxna Ami Sey moom it mën naa jege si daayira hôpital Fall ndigal mbeng ak soxna Boussa May sëñ Mahmadan Mbàkke it mën naa ñëw daayira Bayla sëriñ Mor Thiaw ak soxna Mbayta daayira teenu maam Cheikh maam Cerno Jeng ak soxna Kodd Ñang daayira Touba Wande sëriñ Fàllu Njaay ak soxna Ummi Njaay daayira Makarima Akhlaq Universel Mohamed Dieng ak Serigne Saliou Maroon daayira Olongo soxna Maam Jaara Mbàkke ak soxna Ami Kanj Gédé Guy Ziar soxna Fat Ndiaye daayira Corniche Gédé Baye Mor ak soxna Nday Seck fondation Sëñ Fallu Ousseynou daayira Koupentoum soxna Mari Ndour soxna Kumba Ñang jooruñu fédération mën naa jege si yaa mbenn jooyit bu dee kii na mën naa jege si soxna Debba ko mën naa jege si mën na noo jege si ñoom kilifa yi daayira forage baylaat soxna xëri njaay mën naa jege si ak sëñ Modou daayira sexew ga sëñ bas ak soxna jàbba faal daayira forage soxna Anta Mbay soxna nday ñang mën naa jege si daayira forage 1 soxna ndaak njaay daayira alu laax soxna ayda njaay anamu kàddu gi soxna ayda njaay daayira mbàkke soxna yaasin anamu soxna adama waaw jëwri ñi nga xamante ne ñu ngi ci fédération bi képp ku teew rek te kiwuñu la mën ngaa jege ci porte bi bu ko defee ñu mën laa lijjanti ñu ngi ziar bu baax di ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak wér mbag ndax lii yëpp yaa ñu ko sagale duñ ci lenn bu doon ñun ak ñun dong la lii buñ la koy jox ñaar ak ñett du ko yëg waaye ndax noonu ngeen tàggatee ñun ay Baay Faal lépp lu nit di gis ñun ba di ko yéem rek mi ngi bawoo ci ku tedd kii sëñ Abdou Karim Mbakke sëñ Fall fédération bi nag ñoo nekk nii nga xam ne lu mat gede ba fii rek lu mat ñaar fukki at ñi ngi ànd ak man di déglu sa digal rek saa su ne ñu ngi ci liggéey bi lii nag ñoo ko dajale woon def ko ci màggaluk sëñ fàllu gi juróomi million la ñu lay sant bu baax nag Mbàkke di ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak wér di la seedeel ne ay gor piir nga ma boole la xale yii may àndal di liggéey liggéey bi yow rek lañ bëgg barke sëñ Tuba xooluñu kenn gisuñu dara yow rekk rek lañ bëgg Mbàkke amul ku ci def lenn te ñëwul toog waxtaan ceeg man moo jox ko ci ndigal mu def loolu lan moo ko waral mooy joxoñ bi ma joxoñoo ne la ànd leen kii loolu képp moo ko waral muy Mamor Gaynde mii Mamor Karim Cheikh Ndiaye ñoom ñooy ñi ngànk liggéey bi Mbàkke téye ko léeg-léeg sax ñu dem ci barab defal la fa loo xamante ni nii doy na kéemaan du ma koy sax yëg te bu noppee dañ naan jëwriñ moo ko def jëwriñ sëñ bi moo ko digal mu def ko Mbàkke maa lay sant bu baax nag li tax ma lay sant mooy danga ma maa boole ay qualité nit yoo xamante ne nii yu góor ak yu jigéen soxna Kumba Ñang soxna yi yëpp xam ne nga seen xar ndax dafa yàgg waaye li nuy yàgg yàgg yàgg yàgg yokkatuñu ci sa waar wi arrière ñu reculé wuñ yow rek la ñu ngi lay ñaanal nga yàgg fi bu baax te ànd ak wér xale yi day Mbakke damay ñaan nga ñaanal leen ñu am doole ñu am doole poos ndax tey bi ñuy jóg di ñëw ñoom ñu si bari ñi ngi nii waaye amuñu lu leen neex ndax lii nu joxe xeeb nañ ko lool barki sëñ Fall xeeb nañ ko lool waaye bés bi ñàkk cee toog yow dafa wóorut waaye demoon nañu sax ba naan jëwriñ te ngaa jël addi ji rek dem ci sëñ bi ndànk jox ko ndax ñoom nag mokkal nañ loolu fi mu waaye bésub Kazu Rajab nag buñ ci tolloo ñëw def ak yow nii dafa gën a wóor barki sëriñ Fall lu waay fas di ko gis ndax Cheikh Abdul Karim ngeen toogal te sëriñ Abdul Karim mii ñun de moo ñu defar résultat makaarimal axlaax ku ko bëgg a xool doo sori dangay xool gaa yi toog rek ndax bërki démb am na ziar bu fi am ma dégg ne dangaa ngaa yóbbante nit ñi ne dama leen di yóbbante nit ñi ne teg nga ne leen sama jëwriñ yi damaa bëgg ngeen xool leen ndax samay seetu lañ dëgg la jëwriñ yii duñu umbante mukk mukk mukk Babacar Dieng Lamp Fall Ibrahima Sène Omar Diagne tey ñoom ñoo natt bis bi ñëw ngir fekkee si bés bi mënuma tey laa indi sama àddiya ndax damaa bëgg fekkee si wàllu bés bi te Mbàkke seen àdduna fu ñu toll léeg-léeg dañuy dem ci barab toog fa lu mat ay waxtu yu waxtu waxtu te duñ fa tudd lenn dul sa liggéey bi sëñ Abdou Karim ak liggéey bi nu ñuy def ba mu jëm ca kanam ba bàyyi Fall yi nga xam ne ñoo topp suñu ginnaaw mën a teg seen loxo ci dara Mbàkke ay góor piir a ngi nii ñu am fita gi nii yow rek yaa ñu àttan bu dul woon yow làmbaay ñaaw de ñii bu dee xam-xam la mi ngi ci ñoom ñu bari xam-xam a ngi nii Babacar Niang tey bu bindoon sa tur moom la ci moom laa njëkk a gisee poème boo xam ne sa tur la mu jële ko par araf di ko firi ne dégg ak moom doo ko xam sax ci moom Lamp Fall noonu Ibrahima Sène mais ba liggéey bi di tàmbali dafa daan jël paas lu mat 2000 yor ko dugg ci super ca Ndakaaru boobu yàgg na de du tey seetal loolu dugg super toog ba su feer bi fees mun leen salaamaaleykum ñu ne maaleykum salaam mun leen dama leen di xamal ne doomi sëñ Fallou ngi fii di woote makaarimul axlaax boobu boo nee makaarimul ñu la luy boo nee sëñ Abdul ñu la kuy kooku mun leen dama leen di xamal ne doomi sëñ Fallou ngi fii tudd sëñ Abdul Karim Mbàkke woote makaarimul axlaax damay bañ nag ëllëg ngeen ne yëgu leen woon woote bi mi ngi koy woote de wasalaam daal di wàcc xaar beneen super ñëw mu jël ko loolu moo doon liggéey liggéey bi jaral na leen lu ne mooy seen àdduna mooy seen lépp te ba fii may waxee yow tey la seen pas-pas gën a yees Mbàkke loolu ñoom mënuñu ko yow yaa ñu ko dimbalee balaay sa jëf yàlla nga fi yàgg te wér loo yàgg doyut ñun de sagal nga ñu sigil nga ñu rëccu wuñu luñ doon ànd ak yow saa su ne ma wax ndax ñun bu ñu doonee dara ba nit di ñu gis di am lu muy xemem suñu jëmm rek sa jëmm jee tax képp ku bëgg lu baax rek boo ñu gisee dina am foo ñu teg Babacar Niang sama baay bu baax ba ba wàcc na liggéey jamono yee mu xadda mu tiijaan la bi may ànd ak yow booba dafa defe ne woon rek ci woote yii la rek ndax woote yi bari na saa su ne sañu wax ko liy nuru dara sax dara dafa bari mu taxaw bañ na ma doo dem ndax nag boobu fa ma toll woon la nag ndax nit koo xam ne yar nañ la ba nga yaru jàngal la fi ñu la war a jàngale nga ubbi sa atelier tailleur bis bu yàlla sàkk nga dimbali ay nit yor xaalis bu bari nga jékki-jékki ne dama koy tëj dem wuy ji sëñ Abdul Karim loolu lu jafee dégg la waaye balay sa cam yow yaay jàmbaar xam nga ne lii nga ma fàggu lii maa ngi ànd ak ñoom ñëpp a ngi yokk yokku leen waxal dañ may wax aajo du ma ñëw ci yow dama leen di ñaanal ci barkeb sëñ Abdul Karim mu am Mbacke yaa yaay jàmbaar yow bu ñu amoon ay sëñ Abdul Karim yu ay ñett rek léegi àdduna bi yëpp baax barki Serigne Touba keroog bi ñu demee ci sama sama kër sama baay boobu man damaa jaaxle sax keroog Babacar Niang moom ko waxaat ci sarax si nga xam ne sama baay bi may ànd ak yow daa am nu mu taxawee woon ma ànd ak Babacar Niang dem fa ak sama taawu baay ñu dem fa keroog def fa jotaay saan jot moom ku ku ku mën a jaamu yàlla la mu lal si jaada yi lalal ko boppam kenn doo ko lalal <coughs> ba mu ko lalee ba noppi na ma hey ma xool ko mu ne ma demal ci kanam ma ne ko ah xaw a tiit joxoñ sama taw baay mu ne waaye demal sa kanam yaay seef nga naan lan xoolal liggéey boobu fa nga ma jëlee ak fa nga ma yóbbu nga xam ne bu fekkoon ne danga maa bàyyi fa ma newoon ak ca la ma doon dund kon demal ca kanam du ci am yoon balaay sa loolu lépp yow la ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax nga yàgg fi lool te ànd wér di sant nag di gërëm bu baax ñi nga xam ne saa su ne ñi ngi sawet sëñ sëñ Galas Jatara sëñ Mbàkke Ñang sëñ Xaadim Ndaw sëñ Cheikh ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax Mbàkke Mbàkke ñun daal lañu bëgg mënuñoo toog taxaw fii naan la lii lañu bëgg wala lee man wax naa leen ko damay ànd ak ñoom ci liggéey bi muy makaarimul axlaax nañu bàyyi yow nga bëggal ñu ndax ñun mën nañoo bëgg dara te du gën ci ñun waaye yow lay sant bu baax di ñaan nga yàgg fi lool tànd ak wér liggéey bi de ba muy tàmbali lang ñu ci waxoon lépp gis nañ ko ndax man bi may samp Daaru Rahman boobu Lamp Fall may nga ma boole mu ñëw dama ci jàppale boobu la ñuy doo ko tabbi say loxo boobu ak tey sama digganteeg moom sa yow la teg ci kanam lépp lu ñu war a waxante dañ koy waxante jëwriñ ni daal xam naa ne Mbàkke li nga def ci ñoom doy na kéemaan sëñ Modou jóob mais nag dañ lay kalaamee moom Modou Diop Modou Diop Mbàkke ku kéemaane la ku yéemee yéeme la ay jëfam sax léeg-léeg dañ dañuy bàyyi noonu rek ndax dafa nañu ne dann rek Mbàkke son yi bu balay sa son bu kéemaan la Mbàkke maa ngi wax sëñ son yi bu jóob mii nga ñaanal ko bu baax ndax moom ñëwul rek yam ci sa jëmm fu liggéey bi toll daf ma koy daf ma koy laaj tey bi mu ñëwee addee ju bari la ma jox ma dugal ko ci biir liggéey bi na ma téeméeri junni ma dugal ko ci biir liggéey sëriñ bi nee na li nga ko jox ci biir mat na lool mbaa mu ëpp ko mbaa mu ëpp ko nee na nag li muy jëf da koo xeeb lool nga ñaanal ko mu yokk ñii ak njabootam lañu saa yuy jëf si lu baax day ànd ak ñoom di leen wan yoon wi sëñ ñaay Jóob mii mooy taawam moo nekk kër Mbay Fall yi soxnaam la moom daal mi ngi sant nag nee na nag bi mu la xamee Amar Mbay mais xaritam la taawam moom la ko tuddee nee daal mi ngi sant bu baax nee la yàlla jëmale kanam barkeb sëñ Fàllu sëñ Mouhamadan Mbacké dafa am daayira bu nekk ca goxam waaye daal daayira ba ñoom ñoo ñëw ba ci man ma sëñ bi ni ñuy jàppalee yéeme na ndax nee na moom dafa bëgg dafa waroon di ñëw ci yow di liggéey comme daayira baa nga fa nag mi ngi fa mi ngi fay liggéey ci ñoom fondation Serigne Fallou Mbacké tam faaw ma taxaw ci ñoom ñoom it ñi ngi def liggéey bu doy waar ci dëkk bi màggal gi seen addiya million lañ ma jox ñu yéeme lañu te social yi ñuy def ñi ngi koy def xam naa ne yow xam nga lépp sax waaye am na yu ñuy def si saayir yoo xam ne yow doo ko sax yëg te yow lañu koy askanale ndax fekk nit mu tëdd hôpital amul lu mu fajoo nga ñëw faj ko ba mu wér jox ko xéewal na ko sëñ Abdul Karim moo la ko defal romb kër nit mu xaw a mu xaw a mu xaw a cosaane nga defaral ko ko ba mu baax ne ko Cheikh Abdul Karim moo ñu ko sant ñu defaral la ko ñoom ci social yu baree bari la ñuy dox muy fondation Sëñ Fallou ñi ngi ànd ak ñun ànd bu sincère ànd bu wér Mbacke ñaanal leen bu baax kon xanaa dañuy tëj kàddu yi la jox Mamor mu barkeelu si. Mbacke ñu ngi lay siyaar bu baax di la ñaanal nga yàgg loolu te wér suñ borom defal la téeméeri at yu tàmbali tey ak kullu dongo man ne Mbàkke bi ma santee jëwriñ Ibrahima Mbengue mi ba noppi sant mbooloo mi nga xam ni ñoo topp si ginnaawam ma nekk ci bopp bi li may dagaan sunu boroom am na ko mën na ko tënnu na ñun kull koo xam ne moo ngi sa ginnaaw di sàkku ngërëmal yàlla rek yàlla na ko sunu borom teg ci loxoom ci doole maam Cheikh Ibra Fall lu fi waaye du ut si sa kër gi yàlla na ko yàlla na ko am si doole maam Cheikh Ibra yow nga yàgg sunu kanam. yàgg noo jiite ñu yàgg topp sa ginnaaw mbooloo mi doolay poos la ñaan ndax lii fi jóoriñ wax kenn si ñun am na yéene joxe lu ko ëpp waaye ñoo ngi sant nag bu baax a baax a baax ngir jikko ji nga def si ñun mbàkke kàdd yi bëgg nañ koo gàttal fan yee danoo jóge soow di ñëw yor daamar si péage bi ñu romb benn benn jëmm ju xaw bu paan mu yor bitéelu Evian bu ndaw def ñu nii ñu taxaw mu daal ni man de dama damaa mar yor naa lu nekk nag si oto bi waaye dama paan yónni naa sama ay gone ñu utali ma li ma paan waaye damaa mar yor naa boisson yor naa lu nekk waaye li ma soxla ndox rek moo ma ko mën a jox ma tijji maal bi sottil ko bitéelam ba mu fees daal ni ko ndax yoroo biton mu ne ma yor naa ma daal di koy duyal daal di defaat première di dem seen saa baay bi àgg suuf di tuur xéwal di jooy ma daal wàccaat mu ni ma xam lu tax ma jooy ma nga mu ni ma man de fu ma bàyyi faal ma sa laal loxo dama ko raxas sànq ba tey jullit yi ñoo ngi may romb ndekete ab baay faal moo may dimbali. parce que maam Serigne Fall loolu ma wax mu ni ma sànq ba tey signe bii ma def ku dul baay faal mënoo ko comprendre sànq ba tey jullit yi ñoo ngi may romb ku ma arrêté nga bañ waaye ndekete ab baay faal moo may dimbali. ma ne ñun sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fall la ñuy siyaar barke maam Cheikh Rahane loolu yaa ko def suñu jëmm yi dunu si dara nag ñoo ngi tuubal ñëpp di ñaan suñu borom yàggal la fi lool lool te wér bak sëñ Tuubaa sëñ Alassane Gueye mais wax ba noppi te sant ma ndax dafa def jëf joo xam ne maa moom dañoo ànd fii di dem Dakar bi ñuy dem mu ne ma damay jàdd ci gab bi am xaalis bu ma fa jël bi mu duggee ci gab bi rek dafa yuuxu na ma Ibrahima daw si ma ñëw mu ne ma xaalis bu bari bu tegu foofu lu mat quatre cent mil yu bees tax mu ni ma kii de xam naa ne dafa yàkkamti moo tax mu dem bàyyi fi xaalisam daal di ñu di jël xaalis bi mu ñëw ci vigile ba fa nekk ne ko ñun da xaalis bii fii lañu ko jëlee ñëw bëgg nga jël suñuy numéro bu waa banque bi ñëwee nga signalé leen ko ñu wooñu ñu delloo leen seen xaalis boobu dafa waroon a dem France ci guddi gi waaye directeur u banque ba dafa ma woon na ma yéen taalibe Sëñ Abdou Karim bi xaw ma ay jinne ngeen xaw ma lu ngeen doon ndax fii jamono toll nga for lu toll noonu mënoon koo def neneen ci gab ngeen signalé ñu ko ma ne ko ñun soxlawuñu àll kenn loolu yëpp Sëñ Abdou Karim moo ko def si ñun kon sëñ Alassane bu defee acte bu noble la ba tey waxuma la ko nag waaye acte bu noble la def jërëjëf Mbacke sëñ Cheikh ñu ngi lay sant bu baax sëñ Mbacke ku ma fàtte rek am naa yéene lim ñëpp man maa maa demee noonu. lépp man na man na. ñëpp am naa yéene lim leen. ñëpp samay xare lañ Mbacke ñëpp. sëñ bi gaañ yi ku leen gis xam ne cofeel moo leen fi indi. te yàlla nee na képp koo xam ne bëgg nga ma tey tey jëf ci sama yoon wii na nga xam ne yàlla nee na sopp naa la inna allaha yuhibbu alladina yuqaatiluuna fi sabilihi safan ka annahum bunyaanul marsuus ka annahum bunyaanul marsuus jooju ñee ma ko fettali yàlla def na ñi jëf ci man tama tax dañoo mel ni mooluñ taqale fi ne mooluñ taqale moo tax kër gi mel nii kër gi am na jamono yoo xam ne am ndéenéer la woon waaye bi ñu jëlee mool teg ci mool boole ciment mu taqaloo ñu bël jël mool teg ci mool jël mool teg ci mool moo tax kër gi boo fi duggee lépp sangu lépp yiru waaye bu njëkk foo masa a jàll jaar jàll waaye mool yi ñu tegale moo tax kon bu ngeen bëggee yiiru seen jëf yiiru nii ngeen mel mel ni ay mool yi taxaloo looloo loolooy doxal jëf ji te sëñ bi noppal ngeen ko te noflaay bi dafa am solo sëñ bi toogaay bii ma toogu toog ndaama loolu ñuy dégg te gisuñu ko toogaay bii la mu Cheikh Mouhamadoul Fadil mi sëñ Moussa Ka ne ko yaay doomi sam seen waxamar mbakki mbusoo bi duñu ko jar yaa nàmp yaare weeni ngor yaay bàmba tey jii ci xarnu bi sëñ Ibrahima ñi ngi bég bu baax ndax yàlla dafa am lu mu wax te wax ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa qul li amalu fa sa yara llahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun wa sa turadduuna ila aalimi lxaybi wa sahaada fa yunabbiukum bi ma kuntum taamaluun loolu leer na de sunu borom dane yonent bi waxal gaañ yi nee leen nañ jëf néewu ko waxal gaañ ñuy wax de dana ko waxal gaañ ñuy jëf man yàlla buñ jëfee danaa ko gis yonent bi yow mii yow mii may waxal buñ jëfee da ko gis jullit ñu croiser la baraa jëfuñ sax danañ ko gis xam nga li ci gën a garaw mooy nee ñi croiser la bara nanguwu ñoo jëf danañ gis jëf ji mooy wal mu'minuuna kese jooju rek waaye danaa leen delloo si fii xibaar leen lan doon jëf kenn ku ne mën a leen lii yaa ko doon def xanaa gisu leen sëñ bi temps bi muy jox koo xam ne ñëw na ci moom feeñal jëfam dana jël temps jox la ko wax ci jëf ji wax ni nga doxe nawal la ko te loolu dafa jaadu de ngir bu ëllëgee boo demee bu feeñee ñeneen man cee roy yi te loolu lu am solo la. Ibrahima Mbeng fàttewuma la de ndax ku la fàtte fàtte jotaay bi sëñ Babacar Ñang fàttewuma la de ndax ku la fàtte fàtte jotaay bi ndax dangeen ngeen fee daje di ñaari mbër yuy liggéeyal sëriñ bi ñëw joxe ndoo seen àddee ci melokaan bi ngeen ko joxe. mu ànd ak yar ànd ak teggin ànd ak cofeel waaw ak waaw seen jëwriñ làmp ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi jégalu kon sëñ bi gaañaa ngi nii sëñ Ibrahima mii nit ku lewet la nit ku baax la ñii moo àndal it wax dëgg yàlla musuma gis ci ñoom lenn lu dul fonk li nga leen di defloo ànd koog moom mii ñi nga xam ne ñoom la àndalit ñu ñëw fii daje feek ñoom yàlla boole leen ci ku mel ni sëriñ Souhaïbou bu jóob jóob mii ak ñeneen ñi nga xam ne xam naa leen sëriñ Souhaïbou bañ na ko ba doomam ji da koo jël wan ko liggéey bi ngir mu xam fu mu teg tànkam bi ko fi njëkkee indi loolu laa dégg mu wax ko ndax man wax yi dama koy capté maanaam du la topp na ngir bëgg laa tiñal waaye dama lay dama koy capté rek bu ma gisee loolu avancé ma man koo wax ndax xam naa ne wax ju baax moom koo xam ne yaa ngi koy nekkee boo fekkee yàlla da xam ne waroon nga ko nekkee ndax yàlla moo ne sunu borom subhanahu wa taala moo ne wa qulu linnaasi xusnan lii may def nii ndigalu suñu borom la képp koo xam ne rëy nga ba mënoo koo def it da rëy waaye yàlla la ko digal wax ci nit lu rafet bul soxla sax ko wax ci yow waaye yow del wax ci nit rafet ndax dan la jariñ sëñ Tuubaa dane jëf bi ci gën a kawe mooy bi nga jëf te soxlawoo ci dara waaye nag foofu la yàlla daq feye de ndax xam na ne xol bi jox nga ko ba mat sëkk kon yàlla ngeen fi yàgg a ñëw yàgg ko fi fekk allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ki nga xam ne mooy seen xarit ndax yéen a ko wax yéen a ko def muy alaaji Fàllu Mbakke ngeen def ko waaye def ko xarit ndax def ko waaye def ko xarit moo leen tax a def nii ngeen def moo leen tax a mel nii ngeen mel kooku moom dama leen di bàyyi ak moom tay rek mu demal leen ci waayam ji rek muy sunu boroom tabaraka wa moom mi nga xam ne mën na lépp te mooy def lépp euh, euh, Babacar Niang ñoom dañ fee indi cinq millions jox ma ko ma tudd leen tudd seen taxawaay waaye tudd ma nag limub xaalis bi ñu indi. ci la ma wax ne ma limu xaalis bi nag mënu koo tudd. ndax Ibrahima Mbeng dafa woote. di joxe àddiyaam. te xamaguma ñaata lay joxe. te xamaguma ñaata lay joxe. bu ma tuddee limu Babacar ñaŋ ñoom tem ëpp li li Ibrahima Mbeng war a joxe damay yàq wooteeb Ibrahima waaye ginnaaw Ibrahima nag joxe na lim boo xam ne limub juróomi million la mën na maa tudd nag boobu Babacar Niang kon daal ndaje mi mat na waa fédération bi ànd ak Ibrahima Mbeng jàpp ci Mamor Gaynde Mamor Karim ak soxna yi ñu àndal ñoom ñëpp gërëm naa leen sant naa leen ñi nga xam ne ay daayira lañ yoo xam ne bé bokkuñu seen fédération bi dañ fay ñëw rek ñoom par kenn gërëm naa leen ñi nga xam ne bokkuñu ci fédération bi bokkuñu ci daayira dañoo ñëw kenn par kenn rek ñoom ñëpp gërëm naa leen maa ngi leen di ñaanal yàlla faj seeni ajo maa ngi leen di ñaanal yàlla sàmm leen ma maa ngi leen di ñaanal bu baax fi ñu bëgg a yegg rek yàlla yóbbu leen li ci nekk daal mooy bu ngeen demee yéen a wax ne xaritu sëñ Fallou ngeen yéen a wax ne sëriñ Fallou seen waay la moo tax ngeen ñëw ndindi def nii ngeen def mel nii ngeen mel ku wax ne xaritu sëñ Fallou nga nag waaye sëriñ fàllu nga foo dem nañ ko xam ci yow ci say doxin ak say waxin koo waxal wala koo jëflanteel na xam ne xaritub sëriñ fàllu ngi nii na xam ne xaritub sëriñ fàllu nii la war a mel lu ngeen doxal ku ngeen waxal wala ku ngeen jëflanteel na ko teral suturaal ko màggal ko lewet ci moom di dund ak moom jàmm ndax yàlla kat dafa bind jàmm yi ndax te def li bëgg lool yàlla dafa bind jaam yi ba noppi bëgg leen kon nag ku leen di wormal ak a teral ak a sutural yàlla nga ko séqal ñi nga xam ne dañuy toroxal nit ñi ak di leen gaañ ak di xotti seen sutura yéen ñi xas ñëw fii ndindi ba noppi wax ne sëñ Fallu seen xarit la seen waay la seen sëriñ la bu leen bokk ci ñooñu de bu leen bokk ci ñooñu xaritu sëriñ Fallu daal baax rek warta téqatal kenn warta sabote kenn warta ñaawal kenn itam màggal rek man loolu laa leen di wax neen na ñëpp maa sa tàllal mu ñaanal leen def ngeen lu baax nag sëñ falu bisam ñëw yéen ñëpp ngeen dajale seenu ñaq def ko ci bis bi ngir teraangay bis bi loolu ak jaamu yàlla la ngor la itam nag ndax sëñ Fallou kat ak nekkam lu baax rek la séq ak nit ñi kon bu demee gannaawam mu am ci bis ngeen fonke nii bis bi loolu ngor la jaamu yàlla la ci yàlla jërë ngeen jëf na ñëpp maa si talal parce que li ngeen bëgg def amin sëñ baa ngi ñaan dafa waaye toll na tàllal fas li bëgg teef amin sëriñ bi nee na mi ngi ñaan ci kàttanu yàlla yàlla yàlla faj seeni aajo yàlla leen yàlla sàmm fi ngeen bëgg a yegg yàlla leen fi yàlla yow ku ci am tawat yàlla na ko yàlla saafara ku ci am jafe-jafe yàlla na ko yàlla saafara barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke borom barke sëñ Modou Moustapha barke sëñ Fallou barke sëñ Baara Mbacke barke sëñ Basirou barke sëñ Abdou borom bi barke sëñ Abdou Samad barke Cheikh Ibrahima barke barke sëñ Abdoul Khadir barke Cheikh Saliou barke sëriñ Souhaïbou barke sëriñ Mourtada barke sëñ Modou Boussa Dieng barke Alaaji Bara barke képp ku mas a liggéeyal yàlla liggéey bu mu nangu